Euh, li xew euh, ailleurs c'est vrai que ñun des bu ñu gisee euh, Donald Trump dañuy reetaan mais bon après c'est le président des États-Unis te institution la moom Donald Trump dafa inventé benn mhm. attentat nee na Suède Suède Suède ci mhm. benn genre meeting bu mu doon amal voilà effectivement ci week-end bi la créé benn attentat daal wax ni sans doute déplorer ni yenn dëkk yi di accueillir réfugiés yi parce que dafa joxe exemple ne la preuve que la Suède pays accueillant vient de subir un attentat a expliqué samedi soir ci mm. samedi bi la ko la ko la ko xamle ci àjjuma ci guddi gi la la expliqué ni mm. euh, attentat am na fële ci Suède loolu nag moo stupéfait cest à moo jaaxal ñi nga xamante mooy suédois yi parce que ñoom ñëpp dañoo waaru ndax expliqué nañ nee nañ dañ wax ba ministre euh, suédois bi seen premier ministre dafa daal di benn déclaration sur Twitter expliqué Donald Trump lan la tox loolu la laaj <laughs> li ah. fi jot a am jot am comme incident ci week bi ah. moo ne koo xamante ni dafa bëggoon taal boppam ci kii parce que kooku dafa amoon lu ko naqari ci liggéeyam hmm. nee na à part ça gisuñu ko benn attentat bu fa am nee nañ nag lu toll ni président Amérique war na mën a am assez am outillé am assez d' information yi nga xam ne c'est nécessaire même surtout bu bëggee défendre défendre yenn propos yenn position yi mu am ci ay arguments yu sook yu solide yu mu ko teg waaye du rek jékki-jékki di inventé ay sauf euh, yoo xamante euh, amul. mais ni ci mën a yokk rek parce que actuellement mi ngi mettre en valeur wala mi ngi mi li nga xamante ni ko ci campagne am. maanaam réfugiés yi wala yenn ñi nga xamante amuñu kayit États-Unis bari ci ñoo xam ne leen ciblé du toll de 2000 personnes. y a même des sénégalais d'ailleurs y compris des sénégalais ñu ngi ci biir ne am ay kayit. voilà y a même des sénégalais je pense qu'on va est en contact ak euh, Binta Diallo xam nga moom mooy yëngu ci yëfi international RFM ñu ngi koy nuyu d'ailleurs elle est en train de nous euh, regarder elle nous a euh, envoyé des infos concernant taxawaay yu Donald Trump président bu États-Unis de toute façon ñun dinañu ko suivre c'est vrai que am na image yoo xamante ni tam bëggoon nañu ko partager ak ak ci ay sénégalais aussi yu ñu jëlee Libye pour ñu ñibbisi am nañu image mais peut-être que demain on partage ça ak yéen nekk ay sénégalais yu amul këyit mhm. alors pourquoi ñu euh, euh, topp loolu euh, bëgg leen génne on va faire des ah, enquêtes pour mën a comprendre il mais dinañ dinañ dinañ suivre actuellement comme ni waxee suba ñu gën ci indi ay leeral ci semaine bi incha allah gën a indi ay leeral gën ko saytu bu baax voilà et que quand même États-Unis quand même reste beau pays mhm. bëri ay doomu Sénégal yu fa nekk yu fa tekki lool am mhm. fay këyit am fa njaboot et tout ça il y beaucoup d'Américains yu fekk baax fii ci Sénégal donc à chaque fois exemple day kon rek. ben ay chaque fois ñu dégg yenn ci ay coow yi am par rapport ak migrants yeeg ñooñu ñuy xalaat euh, sunu sunu sunu mbokk yi nekk loolu ay kon waxoon ci semaine bi ñu génn ne ne États-Unis nekkul États-Unis bu nekk du nekk États-Unis sans ces ces immigrants wala ñi a xamante ne dafa ñëw. oui mais ñoom ñoo ko élire. voilà c'est ça ñoom président c'est le président l'image de des des des américains. man de je suis de tout cœur avec lui sopp nañu ñeme nañu renseignement da ngay dem tukki ju téye la la yaa waxoon lii ci télé bi. waaw vraiment les Américains sont vraiment bien. Euh, <laughs> maa ngi siyaar njabootam yëpp euh, euh, famille am dañ maa man jabaram ma neex elle est trop belle I like your wife astafurlah jërëjëf ndax dama fan I am the fans of your wife <laughs> the first lady of America waaw jamono neexul moo gën de lépp la ñuy ñoom <laughs> xam foofu nu mu tudd CAA xaw ma 911 CAA xaw ma jaadis jaadis xaw ma jaayis seen yooyu rek voilà jaayis wala xaw ma jaayaas yooyu olof yi la laaj booy wuti visa olof lañ lay laaj loolu nga wax yow tam wàcce ca ca aéroport ba nga ah. jaaxal leen boo làkkee njaago sax ñu indi la américain bu naan la bu tàkkala dañoo garaaw ñoom américain yi donc moi je les admire beaucoup et voilà le monde il faut il faut nga amuñu culture ignorance ci ci ci langage lépp lépp la ñu bëgg xam waaw loolu la boo boo bëggee dominer monde bi il faut nga monopoliser utiliser langue mm. langue loolu dañ ci dafa am solo. moo tax ñuy envoyé ñuy envoyé toujours des jeunes américains ay ñu dem yenn de ce la yëpp dañuy làkk séeréer cere ñu lekk cere wa wa sama xarit bi de bañ ko téye ca aéroport mu ne alpulaar la dégg ba ko tubaab bi indi ab tubaab da ko ne nu mba dax bu bandaa rek la dégg tubaab bu weex daal taxaw naan ko gàlle maa wóoti mu ŋaang di ko xoolaat mujj gi bi mu ibbi bi léegi naan leen xelam neexu di leen tifli tubaab bi naan ko arrêté monsieur taw tubaab bi dama leen ragal akama leen ragal li may soof yëpp rakkaaju ba wàcce ci aéroport yi boo ma xoolee doo xam ñem ñem lu ci seen yoon rek la leen. ba pare daa mu di saw tubayam. dañuy gis loolu. dañuy intégré sa culture. <laughs> tuba jo teg xet. Serigne Touba tukki dafa metti de. du bëgg da ngay bëgg yegg ba fa nga war a dal woo seen waa kër itam boo wooyee leen aéroport mu di maa dugg. yaa dara gënul naqari. alaaji wuyu fee. léegi di koy waxee di dafa mel ni ko bii. yow lu garaaw laay nettali kay. vécu daal daa mu di saw tubay ji ñëw ko ci nduus mu ibiro bi ney pour wan leen di dof la. ah kii kan la ni. nee na àdd ba.